24 point net l'information à sa juste valeur point net mbokk internet asalaamaaleykum pël bu rafet mu ngi leen di nuyu di leen ziar leen jaajëfal comme ni ma ko tàmm di defee saa su noonu laa ko defaatee fii ci Mbuur tey stade Caroline fay seet si ndaanaan yi nga xamante ne ñoo fi nekk digma li nga xamante ne mooy drapeau chef de l'état ba tax na nag euh, tey ku nekk a fi général bu Mali gaa ngi fi ordinateur Libidor tey xale yëpp a ngi fi dañuy xool rek tey ndam li far la jëm nag ndax suba la final bi te suba du yomb newoon naa leen VSD la woon vendredi jàll na samedi jàll na suba ci des final bi ma ànd seeg Daniel sama caméraman bu mag bi ànd seeg Khadim Bekaay sama góor sama xarit moom nee naa saa yu ma mooy ne ca ba Daniel ñu dem xool ambiance ñu xool na xale yi di mujjee borom ngeen buy jekki sama xaritu axlu làmb yi maa ngi ñaanal ñëpp jàmm. jërëjëf mbokk yi nag xam nga ni deuxième journée baa ngi noonu deuxième journée baa ngi nii mu di tey xam nga ni final bi tey la diggante Thiès ak Dakar te yaakaar naa ni noon noo dem final par équipe Kaolack ak Fatick ñoom noo dem troisième place bi waaye tey fii laa toog ci ci mukaayi libaas sama xarit bi maa ngi koy tey maa ngi fi nekk ak ak pël bu rafet champion maa ngi lay nuyu yow mi toog ci ci mukaayi. maa ngi lay fay tur bu nan la. maa ngi tudd Payet. ah Payel. waaw Payet. Ah? Payet Payet. Ah, Payet. waaw ah, Payet mi nekk Marseille la jour bi. waaw waaw. <laughs> waa tey yow ngay ni fu ngeen toll fan ngeen bàyyeekoo. man Cheikh Tidiane Niang laay ni ñu ngi bàyyeekoo Fatick. ah waaw. waaw dafa mel ni démb sawaay moo ko mujjee daana. waaw mais bii revanche la. mais ba jéem. ba jéem waaw mais bi tamit revanche la. ah combat bi tey revanche la. waaw ñaar tey encore. waaw waaw waaw. ah bon. tey lu ngeen yëg am ngeen yaakaar ne di ngeen jël ndam li tey yu waaw yi moom ñu am yaakaar quoi di final dem final quoi. waaw Cheikh Tidiane ñàkkoon yéen a ngi bàyyeekoo Fatick. waaw waaw région de Fatick quoi. waaw yi fan la jógee. butéel ah si gars rek. gis naa verte zone. rouge bleu ah bare nay couleur. ah gis nga si gars rek. si gars rek am na yu ci bokk Mali Guinée Bamako ak feneen. non fii ma makkakulu bantan kay. ah dem ngeen fa. waaw ngir rek ndam li tey. waaw waaw drapeau chef de l'état. waaw waaw maa ngi lay jaajëfal bu baax. waaw kontaan si yow rek di la bëggee quoi. di kontaan si liggéey bi quoi. jaajëf rek. jaajëf ca kaw ca kanam rek. ca kaw ca kanam. waaw ndeysaan xam nga ne dañal butéel yaa ngi noonu xam nga ne yii la ci mukaay bu nu làmb dimb. bu ci koon ñoom Faalaay Balde Duubalees Robert Papakan Manga Pierre Tene Fodi Yaako Sarr génération boobu ba mu jeex. waaw ndeysaan façon butéel yi daawuñu ko indi ci làmb benn butéel lanu daan indi ñaar sata la gunu yor di ca naan sunu mare naan ca la nuy naan. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si sant ñaari waajur di gërëm sama gaay bu baax a baax ndax computer bi métti woon na waaye ñoo ngi ci ba léegi bàyyiwul waaye di a ñaar bu baax di ñu waa Njaareem ñu gën a jàpp ci affaire bi ndax affaire yi affaire yu mbooloo la affaire yu dëkk la du affaire yu kese dama bëgg a a a waa yow bu baax a baax a baax seen affaire bi doon ba ay télé yi télé yi télé suñu borom gën leen a jàppale yow borom dafa mel ni dañoo xaw a perte mbir yi. waaw njaarim dañoo ñàkk dañoo ñàkk ndax poul 4 lañ nekkoon ñoo ngi dajoon Fatick daa Tamba lañ daje woon ñun ñu gën deuxième ñoom waa Kaolack gën troisième ñoom ñu gën première ñun ñu jël deuxième. jaajëf yaa Moussa nuyu naa la jaajëf jaajëfal naa ko sama xarit bu baax la waaye dañeel xoolal ma lii ndeysaan xam nga ne làmb ngi nii lu nu namu ci làmb ku dem ci lutte simple bi fekk ko fa di gis butéel di nga gis ak yeneen maa ngi leen nuyu de sama waaju baax ji hmm? ziar naa la baax waa waa Njaareem mi ngi nii baax ji waa Njaareem mi ngi noonu waaye jëlal ma waa Njaareem ñi kenn du ñoom di leen ziar bu baax xoolal ma loolu bopp tan la. ndeysaan dañu ko xolal ma ndaali waay waay làmb ngi nii waay réer bu ma le ko fàqat na ko wër na ko da kay daan du ko may dara du ci génn mënu maa gëm ni dana ci génn ponkal mi boo ko brisé da génn ci daan na ko général lii doole doxul jàmm xale général bu Malika waaw ndeysaan dafa am doole dafa am doole waay général bu Malika xool ko waay. xale doole la xoolal bi nii. kenn du moom waay général. borom Malika. Mor Male. ñu ngi dellu siyaar. waaw tey drapeau chef de l'état lan la def ci yow. sant yàlla rek ndax ay xale yu ndaw lañ nekk ci laa ji di compétir man mën naa ni simple bi maay xale bi ci mujjee ñëw 2017 laa ci dugg maa ngi ciy sant yàlla. 93. 93. suba nga war a dem final. waaw di sant yàlla rek ñun ku kuñ xas ba daan buñ paree fàtte na ko. day ndaanaan di champion nga war a dajeeg ay ndaanaan war a dajeeg ay champion loo leen di wax. li may wax rek mooy di santaat yàlla di ñaan yàlla suturaal ñu ndax ki ñu war a dajal final xam ñu bu baax. xam nañ bu baax ay xale lañ dañuy dañuy métier rek yàlla nañ yàlla suturaal la fa ñu cat. waa Fatick ñoo ma yónni yaa xam te ma xam nga waa Malika ma daan yónni waa Malika ñoo ne ma damal wax ak waa Fatick waa Fatick yónni ma yaa xam te ma taxawaalu waruma. ñu gis la boo ci euh, lamb ji sa yaram day mel dafay tàng doo toog di dem di ñëw est-ce que du dara ñun buñ xasee ba dugg ci lamb nii la ñuy mel buñ nekku ci lamb boo ñu fekkee da nga naan non non see ñun buñ xasee ba dugg ci lamb suñu yaram day tàng. merci beaucoup ok jërëjëf. Mor maa ngi lay ziar. drapeau chef de l'état da seetaan ci wala dafa am mbër boo indi. c'est la première fois waaw sama doom day général laa teewal si en plus seetaan si wàllu làmb waaw. waaw ku ne xam na ne la 15 yaa woon sa diggante ak caat booy bambara tey defet boobu naka nga ko dundee. waaw sant yàlla rek xam ni jaam laa bu doon sabablu te def naa sama kéemtalaay kàttan waaw yàlla bi maye nag moo ma mayul jour boobu daana ma may nag ma koy sant bu baax a baax ci loolu waaw gën a tey mën nañ xam armée ban erreur la def ba ñàkk làmb ji. waaw bi ma def mooy damaa forcer làmb ji làmb ji dama ko waroon may temps tuuti mais dama ko forcer de trop. maanaam na ngaa jàpp ne caat yaa ko mun da nga ñëw patam patame ko joxoo ko cër. waaw lool loolu feeñ na ci làmb ji aussi waaw. ñu gis ne après nga ne dee doo génn géej nga siisu lan moo waraloon siisu. non siisu bi xam nga rek sama gars yi armée armée yeeg armée yi xam nga sonn ci man trop mais pour man. xam nga rek ndam rek laa leen war a mën a fayee suma ma daanoo après ñoom rek laay xalaat mais à part loolu man moom xam naa ne sport damay am wala ma ñàkk wala ma match nul loolu laa yóbbaale. mais nag sant yàlla bu baax leen jégal di jégal sama supporteur xam ne nag bor la ci kàttanu yàlla dinaa leen ko fay. incha allah rabbi. Armé fan la teg ay bëtam ñan nga bëgg a bëgg. man de fi mu toll nii moom ah, maa ngi xool rek. waaw ku ma yàlla booleel rek ku gën si man ma war koo daan rek na ñëw. nga ñi nga war a ma war a bëreel xam na xam naa. waaw comme dama daanu nag moom wax ju bari jaru ko baal ma liggéey rek. waaw xool ni yàqu yëpp ñu defaraat. bi gis euh, organisation bi fii ci Mbour ban yég yëg nga ci am. waaw organisation bi rafet na trop mais bu ma sañoon yu mel nii bu amee ñun mën naa ni sax defuñu dara mais yenn mbëri bu ñëwee ñu xam ni ñi dañoo bokk ci laamu ñu may leen mais ci biti lañ nekk daanaka ba mujj dañoo fay pour dugg. loolu ñaaw na ay tubaab ñëw yoo xam ni duñ dara ñu bàyyi leen ñu dugg ñun ñuy liggéey doon ay leader te ëllëg ñu war a téye làmb ñu ñëw ñuy téye dañuy ñàkkal fula ci biti loolu nag xam naa noonu lañ ko sentiré mais Balla Gaye du ñëwoon duñ ko téye wala Modou Lo dinañ liggéey ba yeeg foofu ci kàttanu yàlla waaw ñun dinañ liggéey ba yegg foofu. maanaam da ngaa fay. damaa fay dugg barke Seydina Mohamed. man ak booy ma àndal billaahi wallaahi wa taalaahi invitation yi lañ ma jaay ma dugg. merci beaucoup. <laughs> mbokki internet Sunugal 24 pël bu rafet lii la leen indiloon fii ci Mbour stade Caroline Faye ba tax na ne woon naa leen xale dañoo takk ba mel ni naanaa ku nekk nag di woon sa morom la mu entraîné xale yi entraîné ba ne caay ku ne wane sabu manin waaye nag nee naa leen yàlla mooy maye ba tax ñi mu may dañ leen di wax rek yàlla na leen yàlla defal jàmm bu ñëwaatee yàlla may leen li gën muy ndam ñi yàlla may ndam tamit dañ leen di ñaanal rek yàlla wéeral seen i cër ba suba bu ñëwee ñu jogante waat ba tax na suba la final bi général bu Malika dafay finalu ordinateur dafay finalu Libidor dafay finalu biram biram bisin dafay finalu kon fii tamit suba dina rëtutoo dina wàcc ba zéro képp kuy bëggee làmb wala ngay seetaan làmb làmb neex la lool ah bu subaa bu leen dara rate fii ci Sunugal 24 point net nee naa leen lépp fii lay xewee amul leneen di jaajëfal Daniel sama caméraman bu ñaawul bi yow nee la loo filmé wul baaxul di jaajëfal Xaadim euh, Xaadim Bekkaay nga noonu kon noo ko déggandoo làmb jaa ngi noonu xam nga ni nag suba ku namm làmb na ngeen nu ko xaar fii ci sunu gaal 24 point net ay reportage yu amul fenn waaye pël bu rafet tamit kenn du moom